ñoo ngi àddoo fii ci mahat hikmatul yawmi li tarbiyal islamiyya wa taalim markaz Cheikh Mouhamadul Mourtada nekk Thiès cité ouvrière parcelle numéro 31 téléphone 77 633 77 56 tey ñu fas yéene xikma bu amati solo te mooy wéyale li nu tàmbali woon démb ci aaya jooji nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala danu ci xamal ne lépp lu nuy bëgg am na ci ay magasin yoo xam ne ni mënuñu ko Eh, jeexal waaye nag dara du ci wàcc te waxtoom jotul muy wax joo xam ne nii ju mat a seetantal la ci ab jullit ndax dafay yokk tawxiit day tax nit ki am jikko yu rafet yàlla na ko suñu borom tabaaraka wa taala defal kon ñoo ngi ñaanaat mbokki jullit yëpp ku dégg xikma bi nga jottali ko sa mbokkum jullit ku ko def yàlla na la borom dimbale te suturaal la eh, tey ñu indi ci yeneen i wax it yoo waxi mag ñi waaye ñu tàmbalee ko sëriñ bay Jaxate bayit yi muy wax aay ji rek la koy firee mbokk yi sunu borom ko wa taala ah bu ko sooboon kenn du sonn konoon àjjana la ñuy bàyyi du ñëw àdduna waaye àjj àjjana ak àdduna dañoo bokkut ah, àjjana mooy foo xam ne ni coono ak naqar ak tiis amu fa waaye àdduna nag dafa nax dafa jaxasoo ki mbir yoo xam ne nii faaw ñu xam ne noonu la ko yàlla bindee te kenn mënu koo soppi walan tajida li sunnatillahi tabdilan tëraliinu suñ borom kenn mënu koo tiri kon la ci dimbale ab jullit mooy gëm ab dogal ak gëm àttey suñ borom nangu ko ak am yar ak i teggin ci sunu diggante ak sunu borom yàlla na ko sunu borom tabaaraka wa taala defal moo tax sëñ bay jaxate di wax ne yàllaa nga yor lépp lu jaamam di bëgg ko wut moo dàq fab loola daal koy jox fi saasa mu yor yàllaa nga yor lépp lu jaamam di bëgg ko wut moo dàq fab loola dal ko jox fi saa sama yor lootul filaf waaye mboolem lépp luy xala am sàkkal na koy saaki waxtoo ki sabab yu ko jur mënoon na bis boo jógee yow mii di tàmbali mbay mu daal màggal sa mbay moom mi ca bis ba mu ñor mënoon na bis ba nga juddoo it nga toll ni sa ndey te daal di sa baay it sëkk nag bi la jur mënoon na la daal fab it teg ci aljana jee nga xam ne doo dox ci wopp ak dee ki tiis ak lor te mën na laa daal di jox tey jii sa mépp mu bét sab xol ne guyyu te dootul war waree ki naqar te mën na laa daldi di lépp loo gërëmul ngay mucc koy musle foo jëm far di mbër mu ñu far te mën na laa foofu fi saas yi teg ci kaw ña ci kaw nga mel ni ab jant mboolem ñëpp féete la mboolem ñëpp suufi la far te mën na laa foofu fi saas yi teg ci kaw ña ci kaw nga mel ne ab jant mboolem ñëpp suufi la far yii yëpp mën na ko mën naa def yudul yi la yit loo gis amul nag da ko soobul te xam ko bu wér bul bëgg nag lu ko soobul bëgg loola du mbir ku bëgg lëf lu ko soobul ñàkk ndam mosi yar ndegam dangay bëgg bëggal yar bu mat bu rafet bëggub yaray mbir wutal ab yar te def li la war ku ñàkk ab yar mosub yar faw ab yar a gën ku ñàkk ab yar mosub yar faw ab yar a gën raasal ma ab yar ba gis koo gis te sëgg te for telef du ab yar lu dul sant bu dogal te gërëm ab àtte yàlla na nu for ab yar te jàpp ko yor kon lii boo ci boo ko seetantara nga xam ne aay ji rek moom la ci sëñ bay jaxate di firi te it am na feneen fu muy waxee ne doylul te bul yitte woo wërsëg ba génn ndigal ni du wërsëg du ko raw wërsëg akub digga yem lu ci ñëwam jotugul loo ñoddi ñoddi du ñëw loo xam ne xas na ci ñëw loo dàq-dàq du dem am na fu muy waxeet ne lu jot nga jot ca te kat loo xam ne jot ca jotul doo daw ba jot ca bàyyil fér-fér ji moo lu la jot sëriñ Malick Bassine si daana wax ne àdduna de waay ñaar ñëwu fi ñu nekk ko ban ak ban mu ne lu neex ak lu doy ñu ne ko waaw kon nu ñuy def mu ne xanaa doyloo ak neexantal rek li doyut sax waaye nag naa ci jàpp rek doyloo ko lii neexut sax waaye maa ko neexantal rek man it ma teg ci ne lu dul mat ak mat a koy mottali gannaaw àdduna du mat kon nañ jéem a mat ndax ñu ñu mottali ko damay faral di waxit ne àdduna ndox mu tàng la kenn mënu koo seral waaye nag ku ne yaa cay def lay tax nga mën koo naan waaw mag ñi sax nit ñi wolof day wax ne mag buy naan ndox mu tàng suukar saa tax kon nag kenn ku nekk boo bëggee sa àdduna tane da nga cey def suukar te bañ caa def kaani ak i poobar ak i xorom su bari boo ko defee rek sa àdduna day daal di naqari nga mere nit ñi te defuñu la dara kon nag nañ góor góorlu te doyloo suñu borom tabaraka taala te yéene ñëpp jàmm te xam ne kenn mënta jël sunub cër yàlla kenn ku nekk lam lam namm ci yow bind na ko ba noppi waaw nañ góorgóorlu bu baax a baax ñoo ngi santaan mbokki jullit yeeg mbokki taalibe yi bu baax ci jàppale gi ñuy jàppale waa daara Hikmatul Yawmi ak mboolem yiñ ci jot fan yi yëpp ci ay coup de ak yi barkeelu yoo xam ne nii wax dëgg yàlla moo andi daara moo moo moo jur daara ji ñu nekk daara alquran ji te ñoo ngi ñaan weesu ko it moom doon ay daara yi daara ba daj réew mi ba génn réew mi te yàlla na doon liggéey bu suñu borom tabaaraka wa taala nangu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 in uridu illa al islaaha ma stataxtama tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh auzu billahi min alsheytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim